baada ma amatana wa ilayhi nushur Rewmi FM 97.5 dellusiwaat nañu ak suñu émission waxtaanu fajar ngeen di si ànd ak seen mbokk Ibrahima Dramé gannaaw buñ sante buur subhaanahu wa taala julli ci yonent di ar rasulul mustapha sallallahu alayhi wa sallam ñu ngi leen di nuyu nuyug islaam te mooy assalaamu aleykum wa rahmatullahi ngeen waxtu wi bu jotaan dinañu fas yéene ànd ak yéen géema wéttalantik yéen lenn ci waxtaan ya fiy jaar ci waxtu wi ngir jullit bi wara mën a gindeeku lenn ci mbiru diineem ba tax na yonent bi sallallahu alayhi wa ma yàlla yenn ci xeet wi bokk na ci njàngaleem ya matale ya mu jàngale xeetam neena waxtu wi ñu toll nii de képp ku yàlla baaxe bem na delloo sa ruux nga yeewu ci nelaw la nga war a njëkk ñaan mooy danga war a sant buur bi tabaraka wa taala sant buur boobu tabaraka wa taala mooy nga tudd baat yi nga xamante ni danga koy sant tagg ko bàkk ko won ko ne yaa ma fi nelawloo ci waxtu su néew yaa nelaw waaye ci sa mbaax ak ci sa ñewent delloo waat nga ma sama ruux ba ma yeew ci nelaw ba tax na loolu nga sant yàlla dañ la koy bindal yiw mbokk yi fii jar nañu taxaw seet tuuti la yonent bi jàngale waxtu wi nga xamante ne ca lañu toll nii képp ku di jullit bu la yàlla delloowee sa ruux ba nga jóge ko ci nelaw tudd baat bi mooy lala war moo tax sang bi ne adkaaru istayqaad min an naw yii ay baat la yoo xamante ne jullit bi war na kaa tudd saa yi ko yàlla wërsëgale ba mu yeewu ci nelaw mu daldi tuddu baat yi yow mi ñuy topp ci Rewmi FM 97.5 bu dee xam nga baat yi santal yàlla nga di ko jëfandikoo saa yeewoo ci nelaw comme waxtu wi ñu toll ni waaye bu fekkente ne yàlla dogal na manoo ñaan bi walla xamoo ko jëlal sa big ak fëy nga topp ñu ci Rewmi FM 97.5 su du ñàkk nga jëlee fi li nga xamante ne mooy la lay njëriñ ci sa diine ba tax na la yonent bi jàngale sallallahu alayhi wa dane jullit bi de bu yeewoo ci nelaw na tudd baat bi mooy alhamdulillahi ladi axyaana baada ma amatana wa ilayhi nushuur mooy cant ñeel yàlla buur ba nga xamante ni mooma ma nelewuloo gannaaw mu delloo ma sama ruux waaye ci moom lañuy dellu ginnaaw bu ñu jógee ko ci dundu àddina bi kon yàlla mi la roof nelaw fii ñu tuddee nelaw dee bu ndaw dee dëggantaan ñu tëddee ko dellukaay ba ñuy dellu fa yàlla mooy dee dëggantaan moo tax nga déggee ci njeexantalu ñaan wi wa ilayhi nushur ci moom lañuy dellu delluwaay ba mag ba fa moom dong la waaw képp ku fi jóge ko duñ ne dem na fii walla fële walla dem na feneen dañ naan jébbal nañ ko boromam waaw kañ ndigem borom boobu moo ko bind moo ko fi bàyyi muy dund bu fi jógee ko moo ko fi jëlee kon buñ ne jébbal nañ ko boromam wax jooju de wax ju déggu la ndax borom ba ko bind borom ba ko fi bàyyi wërsëgal ko àpp ak moom ab ab wala dëxalanteeg moom ab ab ab soosu moo jot moo tax mu jëlee ko fi ba tax na yow it booy ñaan gannaaw bi nga yeewoo nelaw la nga war a ñaan mooy alhamdulillahi ledi cant ñeel na buur bi nga xamante ne axyaana moo ma dundal delloo waat ma sama ruux baada ma amatana gannaaw bu ma nelaw loowee te wa ilayhi nushur ci moom la ñuy dellu delluwaay bu màgg bi faatu lii di dee bu ñëwee de du ñu dellu ci kenn kudut fa moom tabaraka wa taala ba tax na boroom xam-xam su mag bu ñu naan xasanul basri rahimahullah moo tax bindkat bi nee na qaala xasanul basri rahimahullah xasanul basri yi yan na ko buur yalla yërëm nee na ibnu aadam yow doomu aadama bi innama anta ayyaamun xamal ne yow sa dund bi mu ngi tënku ci bis yay ñëw di jaar di jàll di dem ba tax na danga war a bàyyi xel ne ku kullama zahaba yawmun bépp bés ba ñëw jaar jàll dem ah xamal ne zahaba baaduk lenn ci yow wàññeeku na am na la denc sa dund bi ba tax na fexeel bés yooyu ñuy jaar di jàll di dem te dootuñu ñëwaat lépp loo ci def na méngoo kullu yu yuhibbuhu llahu wa yardaa ne fekk yàlla sopp jëf joojee mu doon jëf yamu gërëm moom buur bi tabaraka wa taala ndax bés yooyu ñuy ñëw di jaar di jàll ay bés lañu yoo xamante ne dañ lay filme la nga def seeni biir lang ci liggéey lang ci wax fa nga dem nang fa mel dañ lay photo filmer la enregistrer la ñu dem te dootuñu ñëwaat te keroog bés pénc lañ lay won bés yooyu noo ko dundee woon kon bu fekkente ne bés yooyu dina am bés yañ la kay won te mooy bés pénc yowmal qiyaam fexeel bañ lay won bés yooyee na fekk nga def ci biir bés boobu ay xasanaat ay yiw ak ay xeetu jaamu yàlla yoo xamante ne buur bi da kay sopp te day doon jëf yamu gërëm ndax loolu rekk moo la mën a musal keroog bés pinc ci mbagalum yàlla loolu rekk moo la war a mën a texeloo nga dugg arjan waaye jëf ju yiw jëf ju baax ya yàlla gërëm moo la mun a musal ci mbugalum yàlla tabaaraka wa taala ba tax na boroom xam-xam bi muy laayee biir askan bi ne ibnu aadam yow doomu aadama bi xamal ne innama anta ayyamun xamal ne yow bés ya ngay dund mooy sa bés ya nga xamante ne dañoo jël sa dundu bi lënkale ko ak bés ya ngay dund ba tax na danga war a bàyyi xel ne kullama zahaba yawmun bépp bés ba ñëw jaar jal dem ah xamal ne zahaba baaduk am na la denc yow am na la jóge ko ci yow ba tax na yenentu bi sallallahu alayhi wa sallam moom mi yàlla yónni buur bi tabaraka wa taala te wàccee alquraanul karim ci moom moo ñu bëgg a baaxee ci suuratul tawba di saar bi nga xamante borom bi tabaraka wa def ci wax ñi nga xamante ne ñooñu la soxla ñuy méngoo fa nga xamante ne mooy néegam bu sell bi nekk ci kaw suuf si moo tax borom bi tabaraka wa taala ñu baaxee ci saar bi ci aaya bi nga xamante ne moo nekk aaya dix-huitième aaya buur bi tabaraka wa di joxoñal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ana yan kuréel ñoom la yàlla tànn sopp leen ngir ñu wara a mën a méngoo néegam bu sell woowu nekk ci kaw suuf si di jàkk yi kon ndeke du kenn ku nekk ci nit ñi boo jogee rekk danga ne dangay tabax jàkk déedéet ndekete du kenn ku nekk ci nit ñi bu jógee danaan day méngoo mbiru jàkka ji déedéet waaye buur bi tabaaraka wa ma moom jàkk yi buur bi tabaaraka wa mi nga xamante ne moom la ñuy askanale jàkk yi moom borom bi subhaanahu wa moo fi tànn ci aaya bi ay critère ay jikko ak ay màndarga yoo xamante ne dane ci ku mu nekk yow sañ ngaa yëkkati sa loxo ne yow war nga méngoo jàkka yi war ngaa soxal jàkka yàlla yi waaye képp koo xamante ni critère beeg jikko ji nekkul ci yow yow sañoo yëkkati sa loxo ne war ngaa occuper jàkk yàlla yi kon nañ leen xuus ci biir aaya bi xool setantal ba xam na yàlla melale jaamam yi nga xamante jikko critère melokaan yamu bëgg a wax nii ci aaya bi ñooñu méngoo nañu ak aaya bi su ko defee ñooñu ñoo war a occuper jàkk yàlla yi kon aaya ba ngi tàmbali ne borom bi ne innama yaamuru masajid man aamana billahi wal yawmil axir aqam aqaama alsolata wa aata zakat wa lam yaxcha illa allah fa asa ulaika an yakunu min al muhtadin mbokk yi yenn jàmmi yàlla nekk ci yéen ak seeni njaboot buur bi tabaraka wa mu ngi nii di baaxe yonent bi sallallahu alayhi wa ci suñu alquraan bu mag bi ci saar bu tedd boobu di taw ba ci aaya ba ñu yëkkati nii borom bi tabaraka wa seppi na ci biir nit ñi ay nit ñi nga xamante ne daa teg ay tegtal ay màndarga yoo xamante ne ci képp ku mu nekk borom bi tabaraka nee na yow sañ nga occupé jàkkam yi moo tax mu ne li fi nekk kañ mooy innama yaamuru masajid allah ñi nga xamante ne ñoo war a occuper responsabilité sama jàkka yi man yàlla ñooy ñu lamboo ngëm yàlla moo tax mu njëkk ci man amana billah kon dangay ngay doon ku gëm yàlla dangay doon kuy wéetal yàlla bañ koo bokkaaleeg dara bañ a jël jàkka ji moomale ko say askan bañ a jël jàkka ji moomale ko say sant bañ a jël jàkka ji moomale ko say xeet bañ a jël jàkka ji moomale ko ci kuréel ya nga bokk waaye jàkka ji dafa war a nekk jàkkam yàlla d'abord jàkka ji dañ ko war a askanele jàkkam yàlla yàlla moom jàkka ji moo tax mu ne innama yaamur ñi fi nekk kañ ñi war a occuper ñu war a méngoo masajidallahi jàkkay yàlla yi ah du boroom alal du boroom xam-xam du boroom sant du boroom mbubu bu gudd walla du boroom mbubu bu rëy yàlla critère ba mu njëkk toftal ci ñaw wara a occuper jàkkam yi mu ne man amana billaahi da ngay njëkk gom yàlla sa gëm yàlla bi na doon gëm yàlla bu wér méngoog naka yonentu bi jàngale salawaatu rabbi wa salaamuhu nga bañ a bokkaale ki yàlla dara nga bañ a bokkaale yàlla kenn walla lenn nga wéetal ko ci nguuram wéetal ko ci melokaanam wéetal ko ci dayom wéetal ko ci lépp lu mu ne noonu la nga jàppee ne noonu la waaye noonu ngay gomee yàlla du doom ci sa coobare bopp walla ci sa gisinu bopp walla ci sa dégg-dégg bopp déedéet du noonu tamit de dafa am yonent bu mu lay yónni bu du kooku doo xam yàlla ba di ko jaamu doo yàlla bay occuper jàkkaam yi kon yonentu boobu moo la won nu ñuy jaamoo yàlla nu ñuy gëmee yàlla kon num la ko jàngalee num la ko rëddalee num la ko wone defee ko noonu su boobaa sa gom yàlla doon gom yàlla la kenn du sikki sàkk mu teg si ne ñi war a méngoo sama jàkka yi ñi war a occuper sama jàkka yi seen ñaareelu màndarga mooy dañu war a gëm bés pénc wal yowmil axir waaw bi dañ koy ataf ci ak wal yowmil aaxir ak ñu gëm bés pénc am na ci nit ñu nga xamante ne dañoo weddi bés pénc te weddi bés pénc day tax génn diine nit ki nit ki walla jullit bi dafa war a gëm ne bés bu mujj am na te keroog mooy yowmul qiyaama mooy bésu taxawaay ba jullit bi dafa war a gëm ne bés a ngi ñëw yowma yaquumu naasu li rabbil aalamin bés la bi nga xamante ne mboolem nit ñi ñu njëkk ñeeg ñu digg doomu yeeg ñey mujjee ñëw ñëppay bokk taxaw ci kanamu borom bi te mooy borom bi ndaafoon yi beneen aaya borom bi ne wa maa hum anha bi ghaa'ibin ñooñu de du ñu absente ndaje boobu suñu ndaje àddina si ngi ñi daje fii ci àddina am na ña kay teewee am na ña kay absente kon ndaje boobu matalewul waaye ndaje yowmal qiyaama ndaje buy matale la amul kenn kuy absente ñëppay daje bés boobee moo tax borom bi ne amul kenn ku koy wuutu amul kenn ku koy wuute waaw amul kenn kuy wuute bés boobee ndaje boobu ñëpp koy teewee te mooy yowmal qiyaama yàlla ne ñi war a occuper jàkkaam yi seeni ñaareelu màndarga mooy dañuy gëm bés mu daldi ci toftal ne seen ñetteelu màndarga mooy wa aqaama salaat dañuy doon ñuy taxawal julli dañuy doon ñuy bàyyi xel julli dañuy doon ñuy sàmm wanteel waxtu yu julli yi ci bërëb yañ koy defee waaye dañuy doon ñuy sàmm wante nodd bu leen di wonne waxtu yu julli sàngam jot na muy waxtu yu julli fajar comme waxtu bu ñu jógee koo julli sànq muy waxtu yu tisbaar du yàgg tuuti dinañu daje ko waxtu woowu mooy waxtu yi takkusaan bu ñu fi yàlla bàyyee incha allah dinañu dajeek waxtu woowu bi léegi am yeneen waxtu ya des di ñenteelu waxtu bi di timis bàyyi xel waxtu bu mujj bi nga xamante ne mooy waxtu yi gee nii lañuy déggee wa aqaama salaat nga bàyyi xel waxtu ya nga bàyyi xel nodd balay wone ne waxtu ba jot na waaye nag nga di jëm fañ koy jooxee ci mbooloo bu dee góor la bu dee soxna la nga defe ko sa biir néeg moom la islaam sob mooy wa aqaama salaata jëmm jooju dafa war a doon kuy taxawal julli loolu mooy ñetteelu màndarga bi ñeenteelu màndarga ña yàlla wax ne ñooñu ñooy occuper surface jàkka yamu moom ci kaw suuf si bokk na ci màndargaay ñay occuper jàkka yàlla jooju ci kaw suuf si mooy dañu war a am màndargaay wa aata zakata dañuy joxe azak bokk na seen jikko yi dañuy génne seen azakay alal waaye bokk seen jikko yi dañuy saraxe waaye dañuy dimbale ki ñu tane waaye seeni loxo ndeyjoor day joxe la nga xamante ne mooy lay jëm ci ña ko soxla borom bi tabaaraka wa léegi mu daldi di continuer ne ñooñu laa wax ne ñooñu ñoo wara a sama jàkk ya nekk ci kaw suuf si bi léegi bokk na ci seeni màndarga walam yaxsha illa bu ñu nekkee di toppatoo jàkk yàlla ji ñu yore màndarga bi ni mel du ñu dellu ginnaaw ci taxawaay ba ñuy taxawee jàkka yàlla bi du ñu déglu kenn ku leen di xoqatal ci lañuy taxawee ci jàkk yàlla bi ak ña koy taxawee ak ña fay julli investissement ya ñuy investir foofu ku leen koy xañ duñ la sax déglu dañ la du may nopp bi ngay wax ak ñoom ba ñuy dégg say wax ñoom kañ la ñu xalaat ne mën naa dundal jàkka ji ca la ñuy nekk la ñu xalaat ne mën naa yiwinal ñay ñëw joxe waxtu julli ci jàkka ji buñ ko defee jàkka ji yiwin jullit yay ñëw joxe ci waxtu julli ci jàkka ji seeni taxawaay ñu taxawee ko taxawaay ju mucc ayib nee na ñooñu duñu ragal dara ci nit ñi lañ leen di xoole walla lañ leen di wax lu ñu am dara lu ñuy yox yoxi du ñu am benn tiitaange ci nit ñi waaye bu ñu demee bay ragal yàlla la ñuy ragal bu ñu demee bay tiit ci jëf yooyu ñuy jëf yàlla la ñuy tiit mba xam yàlla nangu na seen jëf jooju moo tax mu ne walla walam yaxsha illa allah amuñu dara lu ñu ragal ci doomu aadama yi wala ci mbindaafoon yi kudut yàlla bu ñuy ragal kañ yàlla dong lañuy ragal bu ñu amee lu ñuy tiit ci yàlla lañuy tiit ma xam est-ce que yàlla dina nangu seen jëf yooyu ñuy occuper surface u jàkk yàlla yi masala ñu déggee ci maanaa aaya bi ku doon fay facture ndoxu jàkk ji day tiit ba xam facture ndoxu jàkk jamay fay est-ce yàlla nangu na ko allahu akbar tiitaange boobu lay am ci xolam waaye du ragal kenn ku ko naan bul fay facture ndox bi du yow kese yaa fi nekk di julli du yow kese yaa fi nekk ki ko mën a def du ñu déglu kooku leen di wax lii mokkitu jàkka jaa ngi ni xaw naa tilim xaw naa euh, màggat mu am initiative bu toll nii mu di ko war a changer képp ku koy tiital di ko xoqatal di ko areeloo ci ginnaaw ngir mu bañ kaa def du la sax déglu noonu la ñuy déggee aaya bi même bu ko defee changer moquette yi fay facture ndox bi fay facture courant bi peinture jàkka ji jàkka ji gën dundaat ànd ak loolu yëpp day am tiitaange ci xolam ba xam lima def nii yàlla nangu na ko allahu akbar yàlla ne aha kañ nangu naa ko de te dina la ko fay ba wis moo tax borom bi ne fa asa ulaika an yakuna min al ñooñu nekk di jëf jëf ji sa sama jàkk ji ñooñu nekkee taxawaay bu mucc ayib lañu taxawee sama jàkk yi man yàlla borom bi tabaaraka wa taala nee na ñooñu de xel si na leen fay ma boole leen ci ñi nga xamante ne ñoo ñu gindeeku ndax gindee ko ci yoon bu jub loolu bakken bu ko ñam moo mun a xam lamuy saf waaye dund ci réer dund ci tëñëx tëñëxi dundu ci làmbatu dundu ci xel bu sell tegoo ko ci xam-xam keroog bés pénc ngay xam ne ndekete yàlla xam-xam la santaane ngir nit ki faggu ko kenn du dund diini ci fekke naa ko ñu di ko defee nii danga koy xam jàng ko moo tax yàlla ne ñu taxawee sama jàkk ji taxawaay bu mucc ayib nii ñooñu xel si na leen fay ci kuréel yi nga xamante ne yàlla dalay boole ci ñi nga xamante ne dañoo gindeeku te képp ku yàlla gindeeku képp ku yàlla may gindeeku képp ku yàlla teg ci siraatal mustaqim yàlla gindi la kenn mënu laa sankuloo ci yoonu cànkute kon lii mooy laneen réew mi fm 97 point 5 andil ci waxtaanu suba si lu jub ci kàddu gi ñu sante suñu borom lu ci dëng ñu ñaan yàlla mu jéggal ñu ko ñuy sant di gërëm mboolem ñu ñuy topp ci waxtu bi yàlla ñu yàlla wërsëgal dégg topp jaalana allahu wa iyaakum min allazina yastamiuuna alqawla fa yattabiuuna ahsana ñu war a jébbal béréb bi suñu mbokk yu war a joxe xibaar di leen ñaanal yàlla yàlla ñu yàlla sàmm sama suñu réew allahuma aminna fi awtaanina waslih aimmatana wa wulata umurina